Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf kanam gu fasu ba mel ne musorug na fekk kanam googee la journal Les Échos xëyee kanamuk Aminata Touré la premier ministre du Sénégal ba woon Aminata Touré envoyé spécial bu président Macky Sall moo xëy fas kanam gi ci xët mu njëkku yéenekaay bi ñaari téeméeri milliards ak yu teg yi mu ne nguurug Sénégal teg na ko loxo ci mbiri traque des biens mal acquis gi yéenekaay bi nee nañu wax joojee wex na ko xat moom soxna si ndax tax na ñoo ngi koy jaaba jongee fu nekk ci réew mi ka a moo di Ousmane Sonko nee na Aminata Touré dëgg dossier yooyee wax laalewul taqewul ci mbirum traque des biens mal acquis keneen ku wax ci loolee moo di Abdoulaye Baldé maire bu Ziguinchor nee na Aminata Touré dafa war a amu fit taxaw wax askanu Sénégal ana ñan ñoo joxe xaalis ak ñaata la ñu joxe bu ko defee lépp leer ci bopp askanu Sénégal Moustapha Niass mi jiite Assemblée nationale keroog samedi ci ndaje mu ndawi AFP yi doon amal ba ñu ko laajee lu mu xam ci coowal ñaari téeméeri milliards yi ñuy dégg li ci Moustapha Niass moo di moom yëgul tiinul ñaari téeméeri milliards mook nit ñi ñoo ko yëgandoo musuta fàttali ko fu ñu rectificatif ngir ñaari téeméeri milliards wala ñetti téeméeri milliards Le Quotidien nañu Moustapha Niass nee na yëgul ñaari téeméeri milliards yi Aminata Touré di wax Vox Populi nañu Moustapha Niass keccet na boppam ba set wecc ci waxi Aminata Touré ji raxas na ca boppam moom Aminata Touré mi wax ji xëy na ci dolli leneen ci Vox Populi nee na client yu cour répression enrichissement illicite ak yu procureur de la République bu leen neexee nañu ñaxtu lu ñu mën faalewu leen Aminata Touré Mimi entre mille fois lii la journal bi bind Aminata Touré accéléré cadence am wax ji ci xët mu njëkk yéenekaay bi nee na la mu waxoon tey la ko gën a wax nguur gi jëlee na lu ëpp ñaari téeméeri milliards ci traque des biens mal acquis gi mu di topp gi ñu doon topp teraanga julewul loolee lu am la ci enquête yéenekaay mu na ñu fa damay ñaax waa yi di cour répression enrichissement illicite encouragé leen ñu dem ci traque gi ba jeex taal si la xëy bi le quotidien maire bu kees ak président conseil départemental bu kees neexootuñu keroog samedi dañoo convoqué woon conseil municipal ba a wooteel budget 2018 bu Talla Sylla conseiller ya ca maire ba te bokk ci parti réew mi dëgg ci seen tànk ba tax budget ba jàllul le nañu jëf joojee moo ñuluk Talla Sylla ba tax mu ne Idrissa Seck du nit ku baax bu ko waa Sénégal fale président dóor nañu seen loxo ci ëkk Idrissa Seck moo raw moo raw Hitler yamu président Macky Sall ngir présidentielle 2019 yi taala si la borom yi du dem far na dem fekki kadul dem taala mi fi wayoon Macky yóoni moom yaxi na ca Macky Sall les éco nañu but seem la ñu mu xool moom taala si la waxu lu ëpp ba noppi dem làqatuñu ci ginnaaw président Macky Sall président Macky Sall ci xët mu njëkk la soleil journal bi nañu keroog gaaw ca la ñu doon def ñeenteelu bëccëg yi ñu jagleel wàllum càmm gi ca Kolda foofee sax président Macky Sall wax na fa ay matuwaay yu bari yu ñuy nësër ngir xeex càccum jur gi boole ceekit seet nañu jëmalee kanam càmm gi yi mbay mi ak traite gerte geeg jafe-jafe yee ci am anki dina kaay xëy na ca dem lu bari lépp ñaar fukki fan ba ñu ubbee campagne bi jëm ci njënd ak njaayam gerte gi waaye li enquête gis moo di ba léegi yëf yi doxagul baykat yu ci bari ñakk dégg ku leen ne kilo gerte ñaata moo tax ñuy mbappat seen gerte yi ci marché bi Gaston Mbengue ma nga jëm gendarmerie fa lay mbappate ji tey jii Les ko moo ñu ko wax onze heures ca la ko convoqué ca section recherche bu gendarmerie mbiri Cheikh Gadiaga ak Moïse Rampino journal na ci li tax ñu wóolu ko l'observateur nañu du moom Gaston rek la ñu yoo xam ne jot nañu leen a déglu ca a jële ci presse bi ndax da koy yàq da koy gàkkal kii di Gaston Mbengit yéenekaay bi fàttali ñu ne am na ñu koy tudd ci yëf yi nee nañu jege na dil yi jege na mbir jege na tappale yi direct info dem sax ba xamal ñu li tax Cheikh Gadiaga amoon kóolute ci Gaston Mbeng li weng te yéeme moo di lakk gi amoon ci benn daara bu nekk ci Mbuur l'observateur xëy xibaar bi ci xët amu njëkk bu nuppi daje caak ñoo xam ne fekk nañu yëf yi ñu nitti li ko lakk ga ak na mu demee benn moo di ñaari taalibe faatu nañu ca lakk ga ñaareel bi mooy ci anam yu doy waat la ñu faatoo yoo xam ne ëpp naa nit nit di ko dégg ñetteel ba di borom daara ja ba lakk ga di am fekk ko fa waaw turandoo karo bu baax nu muy mel